ci santal bu baax bi nu mayee nu fekkawaat bis sell bi ci guddigu sell gi waaye di am mbégte mu rëy tey jii ci sunu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge ba cees di maj daairatu majma'i nuuréeni majma'u nuuréeni di kuréel ak daaira bu am solo bu ñu xam ci yoon wi yàlla dogal tey jii ñu am guddi goo xam ne dañ ko jagleel borom daarul moxti ñu daa ko def it daa ko jagleel gaa yu baax yi ci biir yoon wi mel na sëñ baaba nee na ma def nañ ko euh, poroxaan waaye tey jii muy guddi koo xam ne dañ koo fanaa dañ ko bëgg fanaanee dundal def ko addi yi borom daarul moxti insha allahu taala borom daarul moxti nag dëkk bépp ab dëkk ma fu ngeen fi dal rek dal ngeen ci bërëbam waaye ñu tànn itam defee ko ak noonu loolu moom noo ngi ciy sant cant gu amutub yamu di ci am mbégte mu rëyit ci sunu xol di ñaan sunu boroom mu nangu ko ci daraje sëriñ bi jataay bii nag dañ ko daa def guddi gi dañ ci daa def ab jataay boo xam ni dañ daa ubbee rek xasida léeg boo amee ku mën a jàng alxuraan mu jàng alxuraan ginnaaw mën a jàng xasida ginnaaw mën a dem nag jataay bu gàtt boo xam ne jataay bu murit lañ woon hmm. ci daa waxtaane njubug sëriñ bi rek ba mbokk yu bari ci jataay bi dañ ko daa teewe si guddi googu nag mooy guddi gi itam mooy kon tey dañ ko ci sof insha allahu taala dañ def waxtaan wu gàtt bu ma saa waxtaan nag daan ci dugalee rek ay laaj waaye rek tey moom sëñ Baba yéen yéenay borom jotaay bi yéen moom nu mu leen juboo rek ni ngeen xam ne noonu la waxtaan wi sax bu leen neexoon nu dagg ko ngeen tàmbalee na ngeen xam ne daal sant nañ ci bu baax di leen ci ndokkeel itam leen xamal ni eh, xëy na yéen moom da ko fas yéenee def guddi gi yëpp mboolem leen fi nar a yëngu ci. di ko jàng xasida ak di ci tudd yàlla loolu lépp dangeen koo def addi borom daal moxti bu ma déggee ni ngeen ko bëgg a defee noonu la demee addi jooju nag duñ ci fas leneen moom duñ ko rax itam duñ ko ko defaat rek addi insha waaye ci wet gi ginnaaw noonu ay ndongaam lañu sëñ nañ ko ñaan moom ndax ni ngeen ko xamee gaa yu baax yi foo nekk di leen fàttaliku rek ñoom ñi ngi teew ci sawet wet ñi ngi la teg bët ñi ngi lay gis kon sañ nañ ko ñaanit ci jataay bi ci guddi gi ci laxasaat yi mu sàkkul nu fa sunu boroom ak fa sëriñam bu tedd ba sunu boroom xool nu bëtub yermande ci jataay bi wa an yatajalla ala qulubina fi hadihi laxasaati tajalli xubbin wa lutfin wa raxmatin wa ridwanin wa magfiratin wa jazbin ilayhi wa sacaadatin qalbiyatin wa ruxaaniyatin wa wa nuuraaniyatin wa qadaayi xawaaija barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daraja Sëñ Tuubaa mu sàkkul na itam ca sunu borom mu boole nu ca jaamam yam gën a gërëm te bégal sëriñ bi itam ci jataay bi mu sàkku na ci sëriñ bi tam mu ñëw ànd ak noonu jotaay bi <laughs> danga koy sàkku ci moom borom daal moxti fam ne mu sàkku nu ci sëñ bi mu ñëw ànd ak noonu jotaay bi te nangul nu suñu taalibe nangul nu itam nu nekk ay murit yu dara raxut fi wetam nekk murit yam gën a bëgg ci seenu doxin ak seenu melaw ak seenu taalibe loolu danga koy sàkku loolu mooy li ñuy fas kon amatul leneen lu ñuy fasaat moom <laughs> incha allahu taala ginnaaw loolu nag jotaay bi xam naa moom du doon luy luy luy nosu damay dénk sama bopp rek soññi le soññi sama bokk ak ñi ma ko sañ soññi ci jotaay bi maanaam nu xam ne jëmmi daayira lu am solo la ci murit lu mënta ñàkk la itam ci ak murit daayira mooy buntu bennoo ci biir yoon wi mooy lii boole itam murit yi ak leen lëkkale secret yu bari itam nekk ci ndax fi mu ne buñ delloo ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama xadis bi imaam eh, ahmad ak abu daawuda ak al bayhaqi ñëpp nett li dañuy wax ne yonent bi daana wax ne yowmal qiyaam bu ñu fa demee dana fa am jaam ñoo xam ni danañ jege seen boroom jege goo xam ni yonent yi sax dañ leen di ñee shuhadaaw yi itam dañ leen di ñee ñëpp dañ leen di ñee te ñoom sax duñu ay yonant duñ ay shuhadaaw nee na saxaaba yëpp kenn ku ne bëgg a xam ñooñ ñum doon ne ko ñi ne ko la naa ñi ne ko maanaam wax ñu ko kenn ku ne ay riwaayaat bi kenn ku ne wax ne ko daal loolu ñooñu de bëgg nañ leen a xam yonante bi ne leen hum qawmun taxaabu bi ruuxillaahi aw nit la doon ñoo xam ne dañoo ànd bëggante te yàlla rekk a tax maanaam ci ci yàlla lañ ànde moo leen boole mu teg ci ne ala gayri arxaamin baynahum maanaam ay askan boolewu leen am na benn riwaaye boo xam ne sax seeni askan day wuute ñii sant nii ñii sant nale ñii sant neneen kenn ku ne maanaam ak na nga sant waaye bu ñu xasee daje ci déer yi xam nga loolu yëpp dañ ko fàtte kenn du xam nu sa moroom sant ak foo jógee foo dëkk ak lu sa askan loolu kenn lijjantiwu ko fii maanaam daayira bu ñu fa xasee daje ay murit rek la ñuy doon yu dara raxut diisul xam yow boo xam bu ñu xasee ne murit rek amatul lu ñuy lijjantiti yonente bi teg ci ne loolu benn la ci seen melo waaye itam alalit du leen boole ju ñuy joxlante wala ju ñuy jëflantee ab commerce wala yooyu boo dajalewu leen li leen boole du mbirum alal du mbirum adduna du ay askan du lenn lu may jëmmi yàlla rek moo leen boole ku ne xam ne Sëñ Tuubaa mu baax mii nu àndal yàlla moo nu booleeg moom nekk gi nekk murit yàlla moo nu moo nu defal tawféex defal nu xéewal googu nu juddu mën nanoo dund ba génn àdduna te duñ ko xam-xam nga te ña nga xam ne dund nañ ba jóge fi te xamuñu Sëñ Tuubaa ñoo ñu a leen dara ay doomu aadama lañ la waaye amuñu tawféex jooju bu loolu weesoo itam mën nanoo juddu te duñ doon ay jullit waaye nu doon ay jullit ginnaaw bu nu doon ay murit doole ci xam sëriñ bi doole ba doole ci nangul ko loolu lépp mënoon naa am te doo dox doxin wu kii da nga nekk ci biir murit gi rek nekk ci sa bopp waaye yàlla xiir leen ci biir sëriñ bi ngeen di dox doxin wu sell wu wér wu tegu ci njub loolu lépp nag du sunu man-mani bopp waaye tawféexi sunu borom la kon loolu lépp génnul yàlla maanaam sëñ bi lu ñu booleeg moom yàlla la waaw kon loolu day dëppoog loolu yonente boo waxoon ne ñoom ñii de aw nit lañuy doon ñoo xam ni dañuy ànd ci ci jëmmi suñu boroom te yàlla rekk tax aw askan du leen boole ay alal yu ñuy xëccoo du leen boole ab commerce du leen boole dara àdduna taxu leen a ànd waaye dafa wax ne ñooñu nag ay nit la ñuy doon ñoo xam ne ëllëg malay maanaam yonent yi dañ leen di ñee suhadaaw yi dañ leen di ñee bi makaanatihim min allahi taala ngir séenug jege suñu borom ak daraja ji jëleen suñu borom di jox daal ci teg ne ñoom fa wallaahi yonent bi dafa giñ ci xadis bi ne fa wallaahi inna wujuhahum la nuurun wa innahum ala nuurin laa yaxaafuuna ida xaafa annaas giñ naa ci yàlla ne ñoom xar kanam yu weex tàll yu leer naññ lañuy ñuy te itam bis bu ñu demee ba ñëpp tiit ñoom duñu tiit mu teg ci ne duñu jàq itam bu ñu demee ba ñëpp jàq daal di jàng nag aaya bi suñu borom wax ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna jeexale ko xadis bi wax ne waliyu yàlla yi te ñoom duñu amul lenn lu tiit mu leen lu ñuy jàq ndax ñoom suñu borom a leen bëggal boppam noon leen ca ësal ba dara xewut am na fu mu wax ca sax ci alxuraan ne inna alladina sabaqat lahum minna alxusna wax ne ulaayika anha doon la mubaaduuna laa yasmacuuna xasiisaha wa hum fii ma stahat anfusuhum xaaliduuna laa yaxzunuhum alfazacu lakbar wa tatalaqaahum almalaaikatu hada yowmukum alladi kuntum tuuaduuna ay jaam yoo xam ne nee na dara amut lu ñuy tiit ñoom mboolem lu leen nar a tiital ñoom mucc nañ ci ndax suñu borom leen bëggal boppam tànn leen boppam ca ba dara xewul ndax suñu borom boo ko bëggee day fekk moom dara bëggoon njëkk ndax suñu borom sa bëgg gi nga ko bëgg fi ne mënta sabab ak bëggam ndax moom yow jamono la tënk ak bërëb ak i waxtu te suñu borom yooyu tënk ko moo tax ci alxuraan yuhibbuhum la jiital doog caa teg wa yuhibbuunahu moo lay njëkk bëgg nga doog koo moo lay njëkk a wut nga doog ko wuti moo lay njëkk a xëcc nga doog a dox jëm ci moom waaw mi ngoog bu lay jégal sax moo lay njëkk a jégal bëgg a jégal nga doog a jégalu yow <laughs> taaballahu alayhim mi ngi ko wax kon xadis bi day firndeel ni kon gaa ñi nga xam ne nii la daje ñoom ay wàllu yu lañ loolu lay firndeel loolu nag lépp mooy dayra dayra bërëb la boo xam ne dañ fi daje waaye commerce indi woon fi xam nga ay alal yu nii lijjanti indi woon fi du association boo xam ne dañuy lijjanti mbirum adduna ak yu ne demee dégg nga du ay askanit moom kenn lijjanti ko fi fi ne kenn xamul fu ay bokk ak kenn li xam daal mooy kii murit la te loolu mooy murit yi Sëñ Tuubaa doon doon doon yar foofee la la leen doon yar jëmee mooy da génne woon ci ñoom yii société bi jàppoon yi daa teqale nit ñi muy muy muy muy métier yeeg askan yeeg yooyu noonu loolu sëñ bi da ko génne woon ci murit moom ba murit yu njëkk yi moom kenn mënta xam li nga kii ay maanaam yooyu yëpp la jënd li ñuy xam mooy kii daal murit la bu ànd ak sëñ bi nañ koy fonke mooy mag la ñu fonk ko wala moo ma njëkk ànd ak sëñ bi moo ma njëkk xam sëñ bi ma fonk ma gën ko jox cër kon daayira lu ami secret la lu am solo la lu mat a fonk la lu mat a bokk la tam fi ne murit bi nga xam ne daa bokk ci daayira day wuute faw ak murit bi nga xam ne bokkul ci daayira fi ne suñu mbokki télé bi yi nga xam ne day nekk ci daara yi yéen xam nga am ngeen tawfeex ju rëy nag yéen moom ndax daara tubaab yi ngeen nekk ci mën a am seen meloy murit yi loolu moom xam nga tawfeex la xam nga loolu day firndeel la Sëñ Tuubaa tubaab yéen leen dégg naa ma su wax ne yéen kaw gi ngeen yilif ay xol yi moom mën la ko yàlla jox loolu lay firndeel fi ne seen daara yee ngeen ne di fa jàng tubaab da fa gis ñoo xam ne bokkuñ ci daayira mbiri daayira lijjantiwu leen yorul ñorul leen xëy na waaye ñooñu dañuy wute faw ak ñi bokk ci daayira bi murit bu bokk ci bokkul ci daayira moom mooy murit bi gën a tumuranke ci kaw suuf yàlla na yàlla musal ci ci tumuranke li ci ne mooy mooy dayre moom boo ci nekkee faw sa xel di jëm Sëñ Tuubaa maanaam boo fi ñëw sax Sëñ Tuubaa daf yi ndax xam nga te Sëñ Tuubaa li feeg sa xel a ngi ci moom rek ñu ngi lay teg bët xam nga fi ne aljana bu ñu fa demee suñ xel yi lañuy ñuy doxe fi ne da bëgg dem Touba rek gis ne yaa ngi Touba da xalaat sañ Baaba rek gis ko ci sa kanam aljana noonu lañ fay doxe nga xam ne lahum maa yashaa'uuna fiihaa noonu la suñu borom wax loolee nag nun ñi nekk ci adduna adduna bi adduna bi nga xam ne daa matériel xëy na mënuñu ko dund ci suñu xel waaye na sa xel fu mu demee ci gaa yu baax yooyu ñoom it dañ ko yëg fañ ne te dañ lay tàmbalee teg bët moo tax ñuy bëgg fi ne booy def du mel ne wuddul maa xoos wala ngay jàng xasida dañuy bëgg nga teewlu sëriñ bi istixdaaru cheikh xam nga la dafa bokk ci surooti zikr li gën a gaaw ci zikr mooy teewlu sëriñ bi am ñoo xam dañuy jéem a xam maanaa yi di teewlu li wax wala ngay teewlu mbir yomul xëyam waaye loolu li ko gën a gaaw te sufiyanke yi moom tajribe ko tajriba ko bañ dalee jug ba léegi gis nañ ne mooy teewlu sëriñ bi ndax sëriñ bi li feeg sa xel a ngi ci moom mi ngi lay teg bët te bu la tegee bët imdaad mi ngi dox seen diggante mi ngi tëb sa xol ci leer koo xam ne day dàq mbooleem xalaat yu ñaaw yi ak saytaan lu ko nuru ndax sëñ bi suuraam jëmmam ci sa xel fi ne ko seytaane ni muy ni muy doxe fi ne ku ku ku la tey ëpp noonu la suñu mën a wax de inna kayda seytaani kaana daifan loolu la suñu mën a wax fi ne seytaane li muy def mooy day xool sa xel bi boo ci nekkee ci mbiri àdduna mu mën a ñëw waaye fi ne boo xalaatoon jeesi rek day tiit fi ne ndax jees ji lay gis te da nga ko jëmale xam nga <laughs> xam nga mbiri xel lu xorom la moo tax nag bu bu see bu bu yëree sa xol gis na ne day daw ñi kon maa ngi woon ci dayra lu lu lu am solo la boo ciy ñëw sa xel faw mu dem Sëñ Tuubaa laa doon wax faw mu dem Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nag li feeg yaa ngi sa xel a ngi ci moom am na lu dox seen diggante lu muy sànni ci sa xol kon ñëw gi nga ñëw ci dayra teewlu gi ngay teewlu sëriñ bi ci bërëb bi rawatina xasidaam yi nga di ko jàng xasida mooy kaddu sëñ Tuubaa nga xam ne moom dafa bàyyi ko ci xolub sëriñ ba xam nga sëñ bi am na fu misaale ab murit ci ab liir buy door a judd wax ne liir amut lenn lu mën a jëfandikoo lu may meew mi bale ci weeni ndeyam ne nag ab ab maanaam xale itam bu ndeyam ameem soow day feeñ ci moom fekk njëlbeen njëlbeenu nett li bi dafa xam ne murit buy doog a jébbalu mi ngi mel ne ab liir ne liir ndax xam ngeen lenn lu mën a jëfandikoo lu may meew mi bale ci wenn ndeyam ñu ne ko loolu de xamuñu mu ne loolu rek la mën a jëfandikoo waaye nag ndey bu ameem soow day feeñ ca doom ja nag ne yéen maanaam maay seen ndey <laughs> te man ku nàmp ci man di nga màgg di nga am kattan te di am xel waaye nag nee na ngeen sax fi seen ndey ba mu feral leen ne waaye bu leen feralee nag na ngeen moytoo maq suuf ndax nee na suuf moo gaaw ci yóbbee la wéradi te boo wéradee mën ngaa faatu nga xam ngeen lay suuf see suuf si nee mooy adduna ak waa adduna daal ci teg nag ne ne doom bu gisee ndeyam du am soxla ci keneen yitteem mooy mooy ndeyam rek fi ne tey ab ab xare bu ndaw benn at yooyu bu waxee ba dégg kàddu ndeyam jàmmam jeena moom daa dem ca ndeyam rek di ma koy misaal lu bare bari ci waxi sëñ Muntaxa Mbakke ju baax jooje nga xam ne ñu bari dégguñu ko sëñ Muntaxa ku kawe ay wax la xakiim la laa lay wax waaw ci ga maanaam da leen am ay jëmm yoo xam ne duñ leen xam loolu murid yi Sëñ Tuubaa Sëñ Muntaxaa ku kawe la sëñ wax ne maanaam mu demee yomal xiyaam nee na bu ma gisee suñ borom ak yonante bi itam man neen fa sëñ ba lay jawal su nga loolu ñu bari man dem naa fa ndeysaan di ko wax nii ma ko tekkee mu ne ma loolu de am nañu ma ci takk fiir mu ne ko yow de mbak yow ku la takk fiir boo du jullit am jullit amul ci kaw suuf xanaa tey ku wax waaye maanaam liir bu ndaw bu toogee fii président bi toog fee bi toog nii fi ne moom amut moom ndeyam rek la xam xam nga xamut président <laughs> xale bu ndaw xamut président bi xamut bi moom ndeyam rek la te yomal xiyam loolu it am na gërëm gi yomal xiyam imaamul Buxaari net na ne yonente bi wax na ne nit ñi dañ daw wuti seen maam Aadama bu buñ dee mu leen ah nafsi nafsi inna rabbi gadiba al yawma gadaban lam yagdab qablahu mislahu walan yagdaba baadahu mislahu nee na man sama bopp laa dem leen seeti nuux demee ci nuux mu wax leen loola ñu dem ca sayidna Muusa sayidna Ibrahim sayidna Isa ba sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ginnaaw am na ñoo kenn ku ne am kenn ko seet rek waxi Sëñ Muntaxa ji kon foofu xam nga mas na ko fa waaye li mu bëgg indi mooy liir bu ndaw mook murit dañoo bokki maanaam murit murit bu doog a jëbbalu moo melu liir noonu yi ko suñu misaale lu am solo la fi ma doon ñëw sax mooy liir bu déggee kàddu ndeyam dootu amati soxla ci leneen kàddu xasida yi itam noonu la mel ci ci ci murit yi xam noonu gis na suñ Tuubaa eh, maanaam fekki ko jamono fekk nu jamonoom waaye dégg nañ kàddu eh, nii eh, mu wóorul ne ay kàddoom la mi ngoog mi ngoog kon loolu moom mi ngoog noonu la demee moom dayira lu am solo la lu mat di eh, bokk la lu mat a la itam fi ne diir bi nga fi def ci ay bis gi diir bi nga fi def boo demee man xëyam mooy diir bi ëpp solo ci ay bis gi waaw diir bi nga fi def moom yaa ngi dund ak sëriñ bi di dund ak kàddoom di tudd yàlla dem tudd yàlla bërëb yi ñu koy defee rasulullah dafa waxoon ne mooy riyaadu mooy riyaadul janna la ida maratum bi riyaadil jannati farta'u loolu la waxoon sallallahu alayhi wa na bu ngeen rombee dëri àjjana yi na ngeen fa for nee ñu ne ko lan mooy dëri àjjana yi mu ne mooy bërëb yi ñuy tudde yàlla mooy mooy mooy bërëb bi zikr yi nee na foofu malayka yi dafa am ñoo xam ne sax suñu borom da leen sàkk ñuy wër bërëb yu mel nii fuñ ko gisee rek ñoom ñëpp dañuy wootante ne taalaw ila bughiyatikum nee na buñ ñëwee dañuy tiim ñi koy def tiim ko ba ca asamaan nee na buñ fa nekkee ba jataay ba jeex ñu dem fa suñ borom nett ko ko fekk suñ borom moo leen gën xam lépp waaye suñ boroom da di wax ne foofe ngeen jóge de na xam ne ñëpp jéggal naa leen ñoom ña fa nekkoon nee na malaayka yi ne ko ah, diw sàngam de nga fa moom de moom ñëw na waaye nag jotaay bi yitte <laughs> yi taxu ko woon a jóg fi ne yeneen yittee ko taxoon a jóg ak yeneen mbir mu ne ko nag humul qawmu laa yasqa jalisuhum maanaam ñooñu kuñ jotaayoon rek maanaam ma jéggal la te doo texe di mukk kon dayira maa ngi woon ci ne lu am solo la am na yoonte bi wax na xadis boo xam ne moo gën a dëppoog dayra ñu wax ne wajabat mahabbati lil mutahabbiina fiya wal mutajaalisiina fiya wal mutazaawiriina fiya wal mutabaadiliina fiya imaam Malik moo ko nettali ak imaam Ahmad ak ñeneen mooy ñi nga xam ne dañoo ànd bëggante te yàlla tax te sama jëmm tax ne ñooñu maa leen bëggal saa bopp maanaam bind naa waral naa ci sama bopp ne faw ma bëgg leen nee na ñi nga xam ne tam dañuy jataayoo te sama jëmmu tax li nga def ngir jëmmi sëñ bi moom jëm maanaam maanaam jëmm yàlla tax maanaam jëmm yàlla tax lu jëf xam nga murit mooy koo xam ne yàlla rek moo ko ñor ci lépp moom lay sàkku ngërëmam moom lay dox jëm moom lay dàkk ci lépp idil muridu laa yuridu abadan xeer rida rahmaan mooy li ñuy def lépp yàlla tax yonent bi wax ne képp ñi nga xam dañuy jataayoo tey jëmm yàlla tax na suñu borom ne ñooñu maa leen bëggal saa bopp ñi nga xam dañuy ziyaarante itam te sama jëmm tax nee na ñooñu maa leen bëggal saa bopp ñun ñi nga xam ne tam dañuy jokkalante ay teraanga te sama jëmm tax waaw jotaay yi murid fu ñu ko defee faw xéewal am faw teraanga am faaw ñu séddale dara dégg ne ñooñu faaw maa leen bëggal saa bopp suñu borom nag bu la bëggee sëñ mbir mi jeex na amatut maanaam looy tiit ak <laughs> looy ragal maanaam xam nga borom mbir mi nga xam ne àjjana yeeg sariya beeg lépp moo ko tëral te dara tënk ko ci fi ne àjjana bii nii man noo jaamu ba àgg mën leen fi ne àjjana bàyyi naa ko léegi amatut <laughs> moom sa moo te du maanaam du mujj fenn ndax moo nu sàkk xam nga moom la moo tax kooku nag fi ne moom boo boo la bëggalee boppam mbir mi jeex na amatut fi ne <laughs> ma laa xawfun alayhim wala ma ko waxee wala kon jataay yi nii ak dayra rek laa doon wax ne lu am solo la te daa dëppoog ndigalul yàlla li mu wax ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu sëñ bi ñaanoon ñaan na ba tey dégg nga lii boole murid yi <coughs> wax ne eh, wasam laj maa yaa rabbi yajalil muridina maan fii xisnikal xasiini wasam laj maa kon loolu lépp nag dafa nekk ci biir biir biir biir daayira ab ànd nag rawatina àndu murid yi am na yu ci mat a sàmm ndax daa am yoo xam ne xajamal ab ànd mooy murid wërta yëg dara ci boppam di feeg yaa ngi yëg dara ci sa bopp rek yaa ngi ci dox bu àggagut te bu kenn yëgatu dara ci boom sa mbokk gënal la sa bopp yéen ay murit ngeen murit yi njëkk a dooni murit sëñ bi yaroon leen foofee lañ nekkoon naa ne isaar lañ daa def kenn ku nekk ñoom xéewal bu teewee sa morom jëfandikoo ko moo li gënal sax sa bopp sa nga jëfandikoo ko te day mel ne yaa ko jëfandikoo kon yooyu xajamal ab ànd lu mat a moytu la ci dayra rawatina lu mel ne maanaam gis sikki keneen murid boppam rekk lay jàpp ne mu am sikk ci kaw suuf kenn ci murid njëkk daa wax ne maanaam bu bu asamaan si dënnoo ba jafe-jafe maanaam ba ba mbir raglu da jàpp ne moom moo ko waral maanaam <laughs> moom dol moo tax yàlla nar a fàggagal adduna adduna maanaam murid foofu lay ne da jàpp ne moom rek moo sikk du gis benn sikk ci kenn gis ngeen Cheikh Abdul Qadir mu baax ma nga xam ne moom daa sell xam nga bu ñu sell ixlaas mooy lu dara raxut Cheikh Abdul Qadir foofu la nekkoon ko raxutoon moo tax wax loo xam ne mel na wér na kuñ ko indil mu laaj kii kuy bàyyam ñu ne ko moom day baay bi amut baay mu ne la loolu de ci soxna Mariama mu njëkk ma see lañ ko gëjoon a dégg nga xam ne moom xalaatul leneen moom moom jàpp na moom yàlla ma defoon de rek moo indiwaat murit nag foofu lee ne murit moom day sell dara du ko rax moo tax nag murit mooy gën a jafe ci jamono ji moom nekk murit moom <laughs> sëñ bi yombatul ndax yii lay rax daa bari yi ñëw bëgg laa xajamal daa bari murit murit koo ko bëgg a doon fan jamono ji moom faaw nga muñ lu bari ci yi xew ngir rawale sa bopp ngir bokk ca gaaña ngir daje ku baax <laughs> ndax dara jërut nu dem ëllëg te doo gisee moom loolu moom dara àdduna jërut ko dara lay adduna jëru ko yàlla yàlla musal ci lu nan loolu nag ku ko bëgg faaw nga sàmm sa bopp ndax yi lay yi ñëw bëgg la xajamal daa bari ci yees yi xew yi ngay digloog yi ngay gis ak jataay yeeg moo tax suñ bayu jaxatam baaxul daal mu dëgg yombul waaw la yombay nga wax ne man ab murit la te doo ab murit ne na murit dëgg day dee te deegul asal li dee metti metti jotul ak murit suñ bay nag mbiram moom foofu mu ne moom bu dee booba moom noonu booy boonu yem ci bëgg sëñ bi rek foofu xam nga daa sori nee na gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba dundam nga far jee mu rek murit xam nga loolu googu murit moom na ko gën a woyof yaakaar naa xam nga ci saxaaba yi sax dafa am lu ñuy wax Sadaid ibnu Omar ak Ruxus ibnu Abbas daa am ñoo xam ne moom Seydina Abdullah ibnu Omar doon ko tari mbir nga xam ne boo ko laajee lay wax am ñoo xam ne Seydina Abdullah ibnu Abbas moom moom la gën a woyof rek te gën a wax dagaa ñu bari dem Seydina Abdullah ibnu Abbas lañ gën a manel xam nga <laughs> mi ngoog kon mi ngoog waaye murit daal nag murit nag la jiitu mooy bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa moom moom boo jëfut la murit yi jëfit boo bëggee sëriñ bi wér boo mënta jëf la gaañee jëfit bis dana ñëw nga daje moom bis bis dana ñëw nga daje moom mi ngoog foofu nag laay jeexale xëy na ci tomb bi borom borom bis bi ki nga xam ne moom ngeen jagleel bis bi <coughs> muy borom daarul moxti moom lim gën a fese itam mooy bëgg sëñ Tuubaa moom yi moom sëñ Tuubaa ci moom moo ko bindal ndeysaan ca loxom bu sell ba ne ko ayyuhal masbuuxu bi xubbinaa ne ko yow bëgg ma bu doonu paaka dañ la cee rendi dañ la cee rendi moom daa xamutoon keneen ndeysaan ku may sëñ Tuubaa sëriñam boobee ndax dafa feeñ rek tabbi ci loxo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko jàngal dégg nga Bàmbaa ko yor yar ko ci waxtu sigari di ko sëñ Moussa wax te mës la tàggoog moom li waxtu ki bari bi nga xamee ne Mamadou Anta Sali jóge na fi itam mu daldi di yeesalaat ànd gi mu ànd ak sëriñ bi ba tax na moom yàlla da koo defal tawféexi wala sax mën naa ne ab nattu xamul keneen xamul leneen lu may sëriñ bi sëriñ bi itam ndeysaan di di di di ko gore loolu la daa wax borom daal mortu la daa wax daan sëriñ Tuubaa ko gore la xam nga bawal tubaab yi dañ ko fa sonal dañ ko faa sonal lool <laughs> ndax ba mu fa nekkee xam nga rawatina yaakaar naa mooy ci nekku sëñ bu mu jigi maanaam daara ji waa jëwriñam yi dañoo joteek sàmm si xeex tubaab yi woo leen di leen atte nga xam nga tubaab yi ginnaaw ñoom sëñ bi maanaam mbirum sëñ bi xam nga ñoo ko gàllankoor xam nga te gàllankoor ko ci lañ ne buñ dee atte buñ leen dee atte xam nga du sotti bañ leen di atte nag dañ ne ko yaa tooñ génne ko suuf sa boole ci sëñ sëñ Moussa xam nga maa ne boo ca ca mooma at eh, la ñu kalaame cerndo ca mooma at la ñu kalaame la ñu kalaame Cerno tëj jëwriñam ya muy layoog gouverneur tey boobu xam nga dañ ko génne suuf sa sonal ko wax ko ne ko yaa tooñ tëj aw jëw ay jëwriñam fekk moom reyal nañ ko ci ci ci ci ci donga yi mu yoroon ba defal leen sax ab moo tax nag wax na ne bu ko mësaa fàttali ko day wax ne Bawol de moom Sëñ Tuubaa rek ma fa bëgg waaw <laughs> ne de lu ne na ma ko ci kaw suuf <laughs> doon koo xam ni moom mësta génn ndigalul sëriñ bi ci genn anam te itam doon ko fonk ndigal fi ne dëkk bii nii Sëriñ Tuubaa ko joxewoon moo joxoon tur wi tudde ko Daarul Muxti waaw waaye bi mu fi ne ci njëlbeen nga yàlla daa def mu jafewoon lool fi ne gent na ay yoon daanaka peste boobu amoon nga xam ne tey wér-di-la goo xam ni kum dal yow moom dañ lay ber te lépp loo laaleel itam ci ay yéereeg sa néeg lépp dañ koy lakk ndax dara dara dara kii wér di googu mu amee dañoo mujjoon tuxal dëkk bi nga xam tey dañ ko gental dañoo wax ne ay yoon la am na ñu ne booba cinkooli gii lañ dem fi ñuy wax sukóor yi ak am ñu ne fii ci wetu kii waaye damay kan day ay yoon yoon da ci am nag boo xam ni moom kenn ci mbokk yi borom daal moo da ko kii nag di ko wax ne ko yow day Ceerno ginnaaw bari ngay dëkk ndax boobu Mbàkke Kajoor xam nga ba mu fay jógee foofu moom mag ñi dañ daa dañ daa yéem lu mu fa mën a jóge di ñëw ci bërëb bi xam nga bërëb bi fi ne bañ fiy dëkk boobu ndox amu fi fi ne nit tëdd na ci luppi ndeyam di jàmbatu mar ba sedd guy ci bërëb bi mesere gee lañ daa lañ daa lañ roote ji ak ndóoyeen te ndox yomb fi boobam te jamono jooju it borom dooru nanguwutoo nit ku dugg ci jàkka ji te ne te yuróom njàpp <laughs> moo dëkk dafa jafe lool am na ku ne ko daal yow daal da nga xam ne boo biñ gentalee dëkk bi lakk ko dem tuxu am ku ne ko nag da nga jàpp ne sanc bi moom yàllaa ko dugalul rek ginnaaw bari ngay kër nga dem ci sa kër yi Mbàkke Kajoor a ngi fi feneen a ngi fi feneen mu ne ko yow de xamoo ne dëkk bi Sëñ Tuubaa ci moom moo ma digaloon ma ñëw fi te jotaguma ndigalul jóge fi te li feeg moom ndigal loolaa ngi way duma fi jóge mukk moo tax loolu mooy mooy ni moo tax ba ba loola jàllee rek mu del si waat nekk fi noonu noonu la mas di def lépp lu ko sëñ bi digal ci la nekkoon addunaam sëppit mën naa ne sëñ la dëgg la daana fagg lu bari mas na na wax naa wax mas naa wax sëñ <coughs> sëñ Masamba Diop Sam ne ko yow de danoo danoo wute yow lanti ngoon lanti noor nga <laughs> mooy yow lu ñëw da nga yóbbu ci sëñ ba man nag pekk laa ci sëñ bi mooy man damay damay faggu dinaa yóbbu waaye nag dama fi denc loo xam ne fu sëñ bi soxlaa rek bu yónnee ma jox ko maanaam bu ko maanaam sëñ bi ci xam na ne fii ab dencam la woon Cheikh Abdou Khoudoss daana wax ne am na ñaari lettre yoo xam ne gis nañ ko ginnaawam ci ay bagages am yoo xam ne yoo xam ni yaakaar nañ ne dootu yomb kum daje ci benn bi mooy tubaab bi ci moom bind ko lettre di ko wax ne ko booba maanaam ñi ñu tëj fee ci Louga dañoo dem ba nara faatu ngir ab xiif ñu bëgg ñu dimbal leen ci dund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 te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Ceerno Faati faj ko xam nga loolu moo ak bëgg foofu la ma neex nee na boobee ba tey maam Ceerno Ibra Faati mësula tàggoog Bàmba fi la aadaati te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul eh, te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko mbaa mu wuti ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Ceerno Faati faj ko mi ngoog kon boroom dëkk bi foofu la nekkoon doon ko mooy ci sëriñ bi mësu ko yemal ak dara sëñ bi moo ko digaloon fi am na yu mu ko digaloon yëpp am na ci yoo xam ne yàlla defal na ko tawfeex ba léegi mi ngi wéy fi ne bi sëñ bi demee ci géej gi <coughs> ñeenti kaamil yi ñaar yi moo taxawoon mel na ci jamono sëñ bi waaye da caa yokk yeneen ñeenti kaamil yeneen ñaari kaamil boobu muy ñeent ñu di ko jàng ngir di ñaan sëñ bi dellu si waaye da caa dolli woon junni salaatu na bi ci salaatantu na jinaa boo xam ne dana bi seet nañ koy jàng ba léegi mag ñi ngi koy jàng fii ci fii ci jumaa ji ñi ci fas sëñ bi dellu si waaye ba sëñ bi dellu si taxul mu bàyyi ko da ko wéy ñu di ko jàng rek mi ngoog moom foofii la foofi foofi la nekkoon waaw ku ko sellalal la woon tax na sëñ bi itam wóolu woon ko ba tax na mu tuddee woon ko loxol ndeyjooram ida ataaka adudi kitaab yi fa karrimil kitaaba bil mataabi kon moom noo ngi jaar ci moom di ko sàkku ci moom mu sàkkul nu ca ku baax ka mu boole nu ci ñoñam <laughs> dara ji sëñ Tuubaa mu ne ni mën na taxaw foofu xam naa sëñ Baaba nii dañ ko daa defee suñu jotaay bi <laughs> Eh, daanaka boo amee laaj nag ñu kii waaye wax waxamul tey daal moom na ngeen xam ne yéen moom moom yéen ay borom jataay bi noo ngi leen di siyaar bu baax di leen sant di leen xamal ne tam eh, guddi gi itam dëkk bi jàpp nañ ne seen seen seen seen guddi bopp la ndax daayira islaahu daare ni bi nga xam ne Sëriñ Abdou Xudoos Jenn maa ngi koy seen moo ko jiite moom bi mu ko déggee rek da da wax ne li ngeen soxla lépp rek neen ko wax nu nu ànd ko yéen ba tax na lu ci bari ci jataay bi ci basang yëpp ñoom ñoo na ko faggul dañ ko jàppe seen ñoom seen yitte yëpp mooy liggéey sëñ bi dayira lañu yor di di taxaw dëkk bi nekkal leen fi ngeen nekkal leen ko <laughs> kon noo ngi ñaan daal yàlla nangu liggéey bépp di sant bu baax kon mbooloo mi noonu lii mooy jotaay bi tey nag insha allahu taala dañu fas yéene diglu nag waa maj Majmahun Nurayni bii ñoom nu jàng ba fajar insha allahu taala kenn ku ne nag diglu njàng mi mbaa nga yor sa xasida waaye diglu moo mook mook jàng benn la maanaam kii diglu mook kii jàng xam nga soriwul ñoo bokk lu ñuy def waaw yal na yàlla na nga def suñ baaba jërë ngeen jëf noo ngi leen delloo siyaar bu baax yaakaar naa mën nañu taxaw nga wassalaamu aleykum wa wa barakaatu <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñi sant lool tey bëggat lool wax dëgg yàlla ci jotaay bi di sant suñ Tuubaa lool am naa mbégte moo am rek am na nu ko raw ndax dañuy ay dañuy mbooloo moo xam ni xamuñu dara waaye bëgg sëriñ bi rek nag di ko di ko di ko làmbatu rek cer la moom lu waaye xamadi xamadi wala ngay gone xam ni moom am na ngërëmal si Tuubaa moom waaw ni ko waxee léegi ak murit jafe lool ci jamono ji ñu toll am ko it jafe man boo góorgóorloo ba am ca dara sax téye ko gën a gën a gën a jafeeti <laughs> ñu ñu ñu ko ci di sàkku di sàkku lenn rek mbooloo mi moom lenn rek la ñuy sàkku mooy ngërëmal sëñ Tuubaa képp képp képp dara lu dul loolu rek bëggul waaw moom la ñuy wut si moom la ñuy xendu si ñu santat sëñ Tuubaa lool ci ci amaale <laughs> ndax loolu moom wax dëgg liñ doon wut dalil nga ci bu bu wér-wér wallahi lazim yàgg nga dundal sunu ruu ci te gisante mboolem mbooloo mi kenn koo koo ci koo ci waxal rek am na bis foo jaar ak moom ci barab te gisoo ko ngir mooy def ci moom ci ruumam ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Tuubaa ci santaat Sëñ Tuubaa lool di wax ni leen doon ci bis bii ngir dara jaayal ko moom seen moom am gi la am te yem ci yow te lii ñu fi dégg mel na ni mooy leen doon wut rek waaw wallaahi nazim sant nañ lool yàlla na fi sëriñ bi gën a bàyyi yàlla nga àggale ak sa ko li nga bëgg ci sëriñ bi ak xam yàlla na ko sëriñ bi defal waaw te loolu moom mën naa war a waxal ni mooy ngir mën suñ tubaab gi <laughs> ngi santaat bu baax a baax a baax a baax a baax tey tey tey sàkku suñ ko sañee nga ñaanalal ñu mbooloo mi bu baax ci seen bëgg googu ngir bëgg nañ sëriñ bi bëgguñu lu dul ngërëmal sëriñ bi waaye xamuñu sëriñ bi xamuñu luy ngërëmal sëriñ bi xamuñu yoonu wi koy maye itam bëgg nañ ko xamuñu ko bëgg nañ ñu ngërëmal sëriñ bi xamuñu ko yoon wa ko comme laaj da daan am bëgg nañ laa laaj yoon wi may ngërëmal Sëñ Tuubaa mooy lan waaw sëñ Baba yow mbaa doo ma dugal nag waaw <laughs> doo yoon wi may wi maye ngërëmul sëñ ca loolu yàlla na ko yàlla defal dërëjë sëñ Tuubaa <laughs> loolu daal ko yàlla defal di Sëñ Tuubaa ndeysaan xam naa la ca jiitu de moom mooy bëgg ko rek bëgg Sëñ Tuubaa daal ndax bëgg moo lay moo la mën a booleeg eh, ki nga bëgg xam nga lislaam sax boo ci duggee dañuy wax ne yonent bi da wax ne laa yu laa yu uminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wa naasi ajmaina <laughs> mooy maanaam yonente bi boo duggee ci lislaam li mu la njëkk a wax mooy nga bëgg yonente bi maanaam mënoo am ngëm laa yumin mooy ngëm mënu ko am li feeg yonente bi gënalul la si bopp gënal gënal la say wayjur gënal la maanaam say say baay gënal la sa ndey gënal la sa sa njaboot ndax bëgg mooy lii lëkkale ñaari xol mooy lii lëkkale ñaari xol bu wéree nag ki nga bëgg doo teqalikook moom ci baatin ci sa maanaam sa ir si mën nga ko bañ a xam yow man nga ci bañ a xam dara ndax àdduna bii dalay tënk muur la def kiiraay sa digg ak la ci des waaye yonente bi moo xam ne almaru maa man ahab daa am ku ko laaj ne ko nit a ngi nii di jëf ay jëf yu bari bëgg aw nit waaye mënta fexe ba ba jot leen yonente bi ne ko anta maa man ahbabta wala almaru maa man ahab maanaam nit ku ne ki mu bëgg ci kooke lañ koy yéegal ëllëg am na riwaay bu wax ne yuxsharul mar'u maa man ahab maanaam nit ki bu ñu dekki ëllëg xam nga yow ma xëyam lu nose la kenn ku ne booy dekki dañuy xool sa xol rek ka ci gën a fës ka nga ci gën a bëgg rek ñu boole la kook nga dekk ak moom waaw mi ngoog moo tax nag bëgg Sëñ Tuubaa mooy li jiitu Sëñ Tuubaa nag mën nga ko bëgg loolu tawfeex la waaye nag bokkut ak am ngërëmul Sëñ Tuubaa loolu moom leneen meneen mbir la moom <laughs> mu gën a kawe ndax mooy sëñ bi bëgg ci yow mooy sëñ bi bëgg ci yow gërëm saw say jëf loolu nag day aaja nag sëñ bi dénga maanaam ngay ngay nga jëfal ko ci ak bëggam tàmbale ko ci sa bopp maanaam saa yoo demee ba ku la gis xemmem Sëñ Tuubaa yaa ngi ci yoon woowee waaye boo ci tegee nag maanaam fexe ba mbooloo maanaam ñëpp ñoom it ñu bëggal sëñ bi ñu bëgg sëñ bi itam nekk ci njubug sëriñ bi itam loolu moom waa sëñ bi dana la gërëm moom ndax sëñ bi loolu moo liggéeyam ci kaw suuf moo doon dimbali doomu aadama doomu aadama nag des na ko dimbali ci xelam mooy xamal ko yoonu yoonu njub ba sëñ ba nekkoon ak wala njubug sëñ ba la sëñ ba bëggoon ko ci ne mu nekk ca loolu moom kooko kooko def dimbali nga ko waaye itam jëmmam itam des na ko dimbali ndax sëñ maa ma maanaam dimbali jëmm ji ak dimbali xol bi ak dimbali ruux gi yëpp ay ndimbal la léegi nag sëñ baaba daayira yi daal bunt la xam naa ci am ngërëmul sëñ tuwaam daayira yi moom lu fekk yaa ngi ci luñ ne nañ ko teg nga teg te bul lijjanti fa muy dugg bu ko gaa yi jëfandikoo itam ñoom seen seen seen seen mbir la maanaam ëllëg des na leen ko lijjante ñoom waaye yow yow mu fexal bi yow del teg rek buñ nee ñëw maanaam daarul moo te àndal ci gaa yi ñëw buñ nee nañ jàng xasida ngeen jàng nee nañ durus nañ durus buñ dee yëkkati ngeen yëkkati nga buñ ne maanaam dañuy maye dara demal maye ji dara <laughs> te jëm bi lépp nga di ko def ngir jëm loolu boo ci nekkee moom bu yeggee sëñ bi dina la xool bëtub yërmande ndax xam na ne yow kat maanaam yaa ngi ci njubam te bëgg nga ko te yaa ngi dox jëm ci moom boo mu xëccal la boppam gàttandu la ndax kat Cheikh Abdou Khadim bi ma tuddoon léegi daa ne jàmbaar amut ku ñu dimbali moo am koo gis mu am feex ci sëñ ba rek dañ dañ ko xëcc dimb dimbali ko <laughs> yàlla nu dimbali te xëccal nu ko kon am ngërëmul sëñ tuwaam li koy maye mooy nekk ci bëggu sëriñ bi waaye nag nekkal ko ci bëggam gi itam ak njuubam gi njuubam gi nag mooy dimbali doomu aadama ci wet yépp waaw lislaam moom moo doon diine ji nga xam ne ci la sëriñ bi nekkoon doon ci woote jëm wax ne moom képp mooy diine ji ji wér ci biir lislaam ji itam mu am ci yoonu boppam ak déggin woo xam moo dëppook ñi gën a am tawféex ci ci biir lislaam ji loolu lépp nag boo ci nekkee ba noppi nag fexe nag nit ñi nga nga ñu nekk ci xam nga damaa gis bi sëñ bi dem ci géej gi am na saalum saalum bu duggee Conakry Saloum Saloum ba mu duggee dafa am laaj bu mu laaj sëriñ bi ne ko dama bëgg nga dénk ma sëñ bi nag tontu ko maanaam laa ilaha illa allahu sayiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko tontu mooy na xam ne yàlla kat mooy yàlla leneen loo jàpp lu mooy loolu bis dina xam bis dina ñëw nga xam ne yàlla moom mooy yàlla na xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy ndawam leneen loo jàpp lu may loolu bis dina ñëw nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy yonente bi yàlla waaye ba salum-salum ba génne dafa bind wax ne hadiyati safat la daa konaakiri wax ne foofee jox naa fa hadiy yonente bi sallallahu alayhi ne kon jubbanti gi mu jubbanti salum-salum boobee da ko jàppe hadiya ci yonente bi loolu nag mooy li ma doon wax ci taxawaayu dayre yi nga xam ne day jubbanti di teete di dimbali ndax nit ki du xëy rek sotti doo xëy rek génn ci sa sikk yëpp ndax bakkan moom daa doy waar doo xëy rek sëñ bi tàggali koog moom faaw nga ne ci dayre bi yàgg fi te muñ nag te bañ a gaaw a dëpp bañ a gaaw a dàcc bàyyi nag ab ab critique bu bari itam ak sikkante te gis ne yow rek yaa am sikk ci kaw suuf loolu boo ci dox bu yàggee sëñ bi dana la xool bëtu yërmaane xëccal la boppam te mën ngaa amit mu gërëmal la bopp borom dëkk bii nag waxoon na ko ne ko bind na ko leetar boo xam ne mi ngi fi ne ko saa yu bët tegee ci mbind mii na nga xam ne ki ko bind radiya anka ridan laa laa suxta baadahu abadan gërëm na la ngërëm goo xam ne mer dootu ca topp ba mukk yàlla na dugal ci yàlla na yàlla defal ngërëm loole nga xam ne moom dootu nu merewaat xam nga man la gërëm bu noppi ginnaaw ba leneen topp ci loolu mu yàlla ci musal waaye na yéen na ngeen am yaakaar noonu ñëpp bokk <laughs> ngeen am yaakaar ginnaaw yéen lu ne mënoon ngeen koo doone lu ne mënoon def te yéen ngi xeeñtu sëñ bi loolu tegtal na yéen a nga ca yoonu yoonu sëñ bi yàlla yàlla def nu àgg ak jàmm sëñ sëñ bi mel ne guddal ci ci luñ ne